Ndiaga Fass ordinateur Ndiaga Fass ordinateur Ndiaga ordinateur Ndiaga ordinateur Ndiaga Fass ordinateur ordinateur Ndiaga Fass ordinateur ay waay ordi yàlla yàlla Ndiaga Fass ordinateur waay machine sinik waay laa ilaaha illallah ordinateur Ndiaga Fass ordinateur Ndiaga Fass waay mbalka kokoy mbalka maak mbalka maak ndeysaan ordinateur Ndiaga Fass ordinateur Ndiaga Fass e baya ando ndiigi ndeysaan mbalka gi noonu kokoy mbalka maak alias Liw Coor ndeysaan mbalka gi noonu alias Liw Coor ordinateur Ndiaga Fass ordinateur Ndiaga Fass ordinateur Ndiaga Fass lay du dox tak bañ ordinateur Ndiaga Fass jël na ko la ilaha illallah ordinateur kooni machine sinik kwani mwezi nasirika